solo ah. waaw barkeelu jeex. waaw day sensibiliser moom Usabe. waaw vraiment. da ciy am solo. dañoo commencé. on a vu.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 ndax ñëpp xam nañ ne feebar bi nga xamante ni moom moo fi nekk di coronavirus mu nekk feebar boo xamante ni dafa lëmba àdduna rëmba réew mi di ñaan yàlla rek ah mu jóge fekk jàmm ak dëkk yi nga xamante ni instant bii nii wax dëgg yàlla domine na di ñaan yàlla rek yàlla yàlla musal ñu ci ndax ab balaa la boo xamante ni wax dëgg yàlla fépp la laal waaw di jaarewaat yi nga xam ñi nga xamante ni instant bii nii am nañ ay moor ndax nee naa leen Sénégal da gars yi doon xool te gis nañu am nañ ñaari dese di ñaan yàlla rek mu yem feeg jàmm ak salaam leen dëkk yi tamit ñu ñaan yàlla dese bañ faa am tey nag mi ngi nii ndax euh, nettali ci làmmiñu borom la dàkkee mu nekk mbër boo xam te ne ñëpp ko ndaw euh, mais Ousin ji def distance bi tuuti daa ah. waaw da ciy baax Ousin mm-hmm. distance bi tuuti ñu respecté règle bi tuuti ndax yow yaa mm-hmm. sensibiliser waaw waaw wax dëgg de mm-hmm. euh, Basirou dañ koy jox ah, mu nuyoo am ñu bàyyi ko tamit mu waxtaan ci li nga xam ne moom mooy coronavirus bi benn deux secondes. Mm-hmm. ndax porteur de voix la te gis nañ ko day sensibiliser mm-hmm. Ouza maa ngi lay nuyu. waaw waaw soxna Fatma maa ngi lay fay euh, ginnaaw ba ma sant yàlla julli ci Yonent bi euh, gërëm sama ñaari waajur sant Serigne Touba bu wér. sant sama sëriñ sëriñ Maxtar Mbacke bu sëriñ Abdoulahi Mbacke borom dër bi di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér dégg di la gërëm tamit si invitation bi vraiment yow moom ku ñàkk ki ñaan nga yàgg sa caméraman bi quoi vraiment di nuyu tamit sëriñ mi toog fii Kader ak Moustapha waaw di la dalal jàmm vraiment mhm. Mhm. porteur de voix nga ñu gis ni li nga xam te ne moom mooy coronavirus bi mhm. sa mbër yëpp mën nañu wax mbër yëpp ñu ngi sensibiliser Ouza mi ngi sensibiliser moom bu nekk nii jaaxal na si àddina yëpp ah vraiment mhm. mais ñoo ngi ñaan daal suñu borom euh, nga lépp daal parce que jaaxal na ñëpp ak couvre-feu bi mhm. daanaka man 19 heures 30 ma dugg ah, su ma segee café 6 heures 19 heures 30 maa ngi ci biir waaw nit moom looy kii dañ ciy jiite quoi vraiment. Ah, waaw couvre-feu waaw couvre-feu lii fi laalagu la. waaw non man xiir dalagu ma. Ah. waaw lii fi lii fi dalagu ma de. Ah. waaw lii moom seen xiir yooyu ñu yore. dalagu ma de moo tax damay teel tëdd 5 7 19 fii laay nekk di YouTube bi ba 10 ma tëdd. yow géej dem géej fajar gi xam nga dem di liggéey café gi nag. Mm. waaw vraiment. am na solo kooku mooy ki nga xamante ne moom mooy Ouza 2. Mm-hmm. mu nekk écurie nag boo écurie Fass la nekkoon. Mm-hmm. mais ñëpp a gis nañ ne ko moo ko ber mm-hmm. ñëw léegi. Ouza. làmb tax doxul. parce que ni mu meloon tey ay jékki-jékki Balla Gaye Modou Lo Eumeu Sène Balla xam nga Papa Sow ak diw mais gisoo ko ren. Papa Sow Siteu moo fi taxaw la def suñu borom nattu feebar bi am Sénégal tamit nañ delloo suñu xol suñu borom seen seen xel gën a jaamu yàlla moo ci yenn yi xam nga parce que borom li yëpp ay rek waaye moom moo ko mën a teggi ñoo ngi koy mu tegg ko parce que fu mu nekk nii dafa dafa baara lu bëri te ñu doon liggéey seen affaire taxaw na xam nga métti na daal waaw mais ñoo ngi koy ñoo ngi ñaan daal suñu borom ci barki Cheikhul Khadim Euh, yal na fu suñu borom tëj feebar bi quoi mais doy na war trop. Mm-hmm. mais yal na ko yàlla saafara ci barke Cheikh Khadim. parfois ñu ne mbër mag yi. ñoom mm-hmm. yàq làmb. parce mm-hmm. ko mel ni muuru tey bëri wala Balla Gaye ay mët seen ñoom Gris Bordeaux ñoom Papa Sow dañuy feesal stade te tamit ñoom vraiment ñoom ñooy li naan VIP ñoom ñooy VIP yi parce que tamit làmb ku si nekk am na lu sa suñu borom may ñoom la fa yàlla teg ci kaw. tey Balla Gaye gars yi koy namm. tey Modou Lo gars yi koy mang xool tey Modou euh, lu leen arrange ñu bëri ko. parce que mu def ko sëriñ. billaahi wallaahi lu am la. man mi nga xam ne xale bu tuuti laa. yooyu bëri kooñaa. billaahi wallaahi 750 mille def naa ko si sarax. am na benn sëriñ boo xamante ni man ci laa ko bàyyi man. loolu la de damaa dem fee mu utloo ma ñaari bëy. Ah. ma dem këram di jëli sama saafara. billaahi fekk mu lekk bëy yi njabootam man ci laa xam ni loolu c'est dur waaw. waaw jël loo ñaari bëy. waaw billaahi la. waaw loolu la ma wax mais dama ñëw fekk mu lekk bëy yi. léegi après boo ko gisee muy man kay dama ko gis yëngal sama bopp naan ah waaye suñu tool man li sëriñ wax su ma demee ci làmb dama ci bàyyi xel waaw parce nit looy wax na nga wax moo tax léegi nit sooy dem ñaan da dem si ñaari kilifa am ñoo xam si sooy sàlle seen loxo ne la tëf suñu borom da koy nangu mm. moo tax ñu naan baatin bokkul ak bëti neen mm. waaw man su ma xaalis moom mm. yéen sëriñ dootuñu ko lekkati di. ban sëriñ la ba tamit. waaw lappataake ma benn sëriñ la mag Komba euh, Koña. moom it la ku baax la vraiment maa ngi koy nuyu bu baax mais xam nga lu ma sëriñ wax ma ci bàyyi xel. Mhm. lappataake la ma jox ne mooy seeral boppam. ok bi ñu léewtoo affaire bi seerul man ah ci li mu waxoon gisuma dara waaye nag suñu coolam borom seeral ko sama bopp bi ma ñëwee la ma ne lal <laughs> waaw mais lu yéeme la waaw am na am na lay mu ne la taxaw ne ma soo taxee ci ko ko xool yàlla rek moo tax may wax de barki Cheikhul Khadim mhm. mu ne ma soo xool da mhm. ah. Ah, na tey de waaye parce que man Baye Fall la ah, dama doon ngemb parce que sama entraîneur yi yàlla xam dañ ma koy wax neen ma xaari mi noon am ñoom ñoo ngi ci dëgg mm. ñoo ngi ñoom ñëpp ay mag lañ samay kilifa lañ mm. ñoo ngi seen kër yi te xam li ma wax dëgg loolu dëgg sax ay may combat xam nga lu ñu may wax demal nga ngemb ji soo ngemboo kenn mun la dañ lay rey ba nga dee pour dal la ba mënuñu la dal mhm. parce que li may ñoom li ñuy def man du ma ko def mhm. xam nga yàlla euh, mooy baaxal nit mhm. tey nit kenn yàlla suñu borom mooy baaxal nit day doxee ci nen mais siraatal mustaqim lay doxee parce que tamit ñun am nuñu yareel benn man xaarim la ñu tuddee yéen ñi ma ko nit laa nag du ma dara may la mais maa ngi ñaan yàlla lii a tey ñu bëri waaw ñoo ngi yaakaar xam nga rek fekk waaw du foofu. fekk ñun sëñ bi rek la ñuy dund. waaw dëggal sellal leeral ànd ak sëñ Tuubaa. billaahi wallaahi. su ma la waxee Balla Gaye Modou Lo. Mhm. Eumeu Sène. Mhm. Tapha Tine Lac de Guiers. Mhm. sànq yaa ngi ñu koy junj sax. ni yow ak Modou. dangeen a a bëri. dangeen a xaw a nuroo bëri. bëri waaw Modou waaw bëri waaw mburu tànk la mburu tànk la waaye moom da cee fiir di ko du ko maye. Ah. waaye kenn dàq ko. noonu la ko mënee mais di ko maye man maa koy maye. waaw Balla Gaye kële moo la gën a neex ci moom. waaw Balla champion la Balla Gaye moom même su fekkee mbër nga wala du supporter di nga di bërëm dina la neex parce que jàmbar la. Balla su bëri day neex. Balla am na fit. mën na lamb am na jom te day jaay lamb. tamit ku baax la. dañuy dégg teraanga yi muy def ci lu baax. te tamit nit xol bu laab mooy def loolu. Balla Gaye am na xët nii. mais musuma tëmb moom nii mais ñi nekk moom nee na soo toog moom da ngay xam ne parce que taalibe la. te baax la ñu ngi koy nuyu au passage. vraiment waa ndaanaan la. Balla Gaye sooy seet lambam du yàgg coor bi sifflé dalay teg loo attanul dox sa kaw gëdd la lu mu am jël suy daanu daanu sooy gisee léeg-léeg suy bëri amal seen am xam nga tey mën nga nekk xale ba pare xam man dama xam bëri ba pare mën ko ba pare xam ko Balla Gaye saa yi bëri amal seen xam nga amal seen euh, mbëru loxo la Balla Gaye mbëru ngemb la moo nag mais saa yi ñu bëri ama day xeex moom te Balla Gaye ne la du daw saa yi ko ëma dóori mu gëdd ko ama dana jiwre moom sol ko mais su ko solee ama da koy bañ mu jàpp ngemb da koy xeeñ ngemb li sol ko deuxième bi da ko soloon pour caxabal ko comme ni mu ko defoon bi passé waaye Balla Gaye day naran gis bi ko ëmb soloy di ko dur mbon moom moom moo jël la waroon doon wala mboq tàqali ko par gis nga li te xoolal allah ni ngi doole yëpp na ni mu toll te tamit dafa bëgg entraînement muuru dégg naa doon entraîné ak gars yi day bàyyi ba gars yi dem day dolliwaat parce que jàmbaar la wax naa la bokk nañ équipe nationale un mois benn lal daf mooy sànni xeer rek waaw maa da nga koy wax moom moo usaale woon mais feebar naa ma ma garab fekk dama dogoon jënd xaa jënd xaalis bëri la ma jox def nañ fii tamit café koor gi fii man ak jili yàlla na ko ma xaalis bëri ne ma loolu nekk dinañ baax a baax ndaanaan la parce que Eumeu Sène jaar na international Eumeu def na lutte olympique Eumeu Sène ndaanaan la Eumeu Sène sax ñu ko xam ci mbapat man nag mosuma ko seetaan mbapat mais ñu ko seetaan mbapat parcelle nee nañ kenn ko laal mais dama gis bëri googu arène daan arène parce que moom usa dañu maa koy nuyu champion la Gris sooy gis ay ay temps xam daan dafa amoon seen bu njëkk ba mhm. Gris dafa amoon rapidité mais lu ko may mooy entraînement bu na xeex am na songu am na bëri daal. am na bëri waaw waaw parce que a du dem ba yegg mhm. ne. mbër rasukat mhm. la waaw. te dégg nañ suñu papa Birahim Ndiaye mhm. euh, moom ko ko nuyu. ku baax la moom it moom vraiment roy kaay la moom it parce que vraiment ni muy doxee. ku jar roy la mais li ma dégg ci moom musuñ toog nii nag sama benn combat la ñëw daal sama calaf bi doom ma di ko waaye doom moom loolu foofu keroog laa ko musuma xam nga lu tax mbëri duñ ko gaaw a daan euh, musuma ko gis si mbapat nag moom day ñëw daj doo xam te ni moom doo ko daj ci coono léegi suñu taxaw doo ko yëngal te làmb doole te mën na bëri la diggéer mën na bëri am na bëri de day nax gars yi su waree song day song su waree taxaw day taxaw te day def wóor waaye ku mel noonu mbër la rasu ci lamb la bokk nit soo ko songee day rasu bu jeex taxaw. Mhm. la da jël mbër la champion kuy roy ci moom na nga ko roy ci entraînement moom mosuma ko fekkee nag entraînement mais dama dëgg dafa ñeme entraînement. Mhm. waaw te gis naa comme ba am di di liwtoo loxo yi di wàcc du sonn. Mhm. waa jàmbaar la koy nuyu baax. pour yow Tapha di tax amul combat. gis nañu bari dañ naan. gars yi dañ koo xaw a waaw li amul combat selon toi comme daanaan nga. waaw ay qualité waaw tafaatin fekk nañ fekk nañ sax ma pat maa ngi mu Assane Diouf. ñoom ñu bëri luur ñu ñu bëri lese yi. fekk naa ko foofu moog Batika niil lañ. boobu maa Batika ñoo àndoon quoi stade Assane Diouf. Mm-hmm. tafaatin euh, champion la mbër la. xam nga mbër day gudd rëy ñun ñi ay mbërëntaan lañ ay bërikat lañ rek. mais mbër doo taxaw ñu ne ana mbër mi ñoom Bombardier ñoom tafaatin noonu la bokkul. tafaatin ak jamono ji mu toll nag fi mu nekk nii dafa xaw naqari deret parce que temps yi passe maa ngi dégg maanaam ku mu jël mën na pàjjale waaw fi nekk ni guddi yi du neex dan mm. su ñëwee tey ni ko Zallo waxoon bi ñuy bëri ak Yékini genre parce que mbër mm-hmm. mm-hmm. la te mag ji yàlla na ko yàlla yërëm ma nuyu Pape Dia mais comme affaire mbër bëgguma ko nuyu comme day bëri amat seen mu ne ma usa am na ko naa mënu ma bàyyi leen seen affaire mbër yi man yi gëwuma ko kottu ma ndeysaan sol ma gars yi photo ñu euh, def ko suñu làmb ñu naan ma xooloo moo ngi mel ni papa doom Badike non ba Bombardier ku koy roy na nga roy ci nit ku baax am xol bu làpp ba pare am dignité parce que mosuma gis mu daan di wax Bombardier moom vraiment royukaay dëgg mooy Bombardier nit ku baax mooy Bombardier mhm. musuma toog moom nag maa koy jàlle Pape Diop bu baax a baax parce que Pape Diop nit ku baax la waaw mais musuma toog ak Bombardier mais ni ma ko gisee comportement am mhm. royukaay la mhm. waaw Bombardier yàlla na ko yàlla jàppale arbitre CNG dégg li nga xamante ne instant bi moom la ñuy waaw arbitre bi assurance waaw la ñuy gis nañ ni ñu bari ñu ngi naan Alioune Sarr na dem wala dem. mais arbitre ak CNG nan nga gisee coow loolu noonu. waaw bari di grève ñu mhm. rajee ki nga xam te ni. Mhm. moom mooy. Euh, Sitor waaw ndeysaan. Mhm. Malick Ngom sa copain. waaw waaw Malick ndeysaan. waaw CNG ak arbitre ñoom yàgg nañ xaw ma ban minute boobu ñun sax duggun ci làmb yàgg nañ te président Alioune Sarr vraiment tamit kilifa la. te tamit euh, homme de parole daal te tamit nit ku baax la te kilifa la te kilifa da ngay di jëlale xam naa erreur la te ñoom comme yàgg nañ vraiment xam naa ne suñu waxtaanee dina juboo waaw mais ñoo ngi ñaanal suñu borom def ci ndox mu sedd guy ba nekkat nekk benn fa Sitor ancien la kii ngoom boobu keroog dana ko gis nga bi li mu ci def geste daal suñu borom jubal leen mais daal vraiment daal ñooy waaw ñu xam ni ko olof di waxee waaw mais daal suñu waxtaanee daal dina juboo parce que ñoom ñëpp benn lañ vraiment waaw vraiment Alioune Sarr gars yi na vingt cinq ans mhm. doy na mhm. ñii na dem dégg nga problème bi dégg naa ko mais Alioune Sarr de Alioune Sarr yow d'accord nga ci ñaan ñi dem ak ñi dem. waaw foofu duma fa mën a dugg noonu. Mhm. parce que mbër mu ndaw laa te président Alioune kilifa la yenn mbëri tamit suñu nawle lañ ñoom ñoo ñu nekkal fépp hmm. mais tey su ma nee mu dem wala dem kooku dama ciy tuuti loolu mais noo gisee Alioune ba hmm. moom la moom laay wax waaw ma ne moom hmm. xam man nekkul man maay d'accord euh, aw euh, man mu toog fii ñàkk fi toog man am amu problème moom comme état moo fi teg te état mooy euh, fal ñooy ñooy fal nit ñoo koy teggi xam naa suñu ministre Matar Ba ñoo koy nuyu moom tey su affaire yi matee ah moom fekk Alioune Sarr war na dem dina na mu dem fekkee dafa war a toog dina wax mu toog loolu la quoi vraiment. non ragalu moo ko sax dama ko jox cër xam nga euh, mag da nga koy jox war ma. Mm-hmm. loolu rek du ko dépense du ko mm-hmm. waaw loolu mm-hmm. moo tax bëgguma si sor noonu daal. waaw vraiment. <laughs> beneen bi mooy que ni. Euh, Ouza. ñëpp nag nee jot na quoi. muy soxna. waaw <laughs> waaw ndeysaan. parce nga ni yow liggéey sëriñ bi. waaw mu doxaan. waaw kii wu faam mais sa relation ak jigéen ñi ba pare. waaw demee. waaw jigéen ñi moom vraiment jàmm rek lañ ma seq ak salaam. Mm. ñu ma gis ni noonu lañ ma soppi soppee mel ni ñoom naa soppee jigéen ñi. Mm. parce que tamit ñun suñu borom moo ñuy bind bind muy jigéen ak góor. Mm-hmm. tey man du ma daw benn jigéen de. Mm-hmm. dañuy saan di jàmm ñu jox ma cër jox ma damay damay sant ñoom ay xeer di ma tooñ léegi ma tooñ yàlla baax na yàlla bëri na tooñante su fekkee du dara mais li may wax euh, a tax lu wér noonu lay doxee ba léegi mais maa ñaan suñu borom daal mais ma soxna su baax a baax bu yaay fal daal bëgg naa ko waaw maa ngi ñaan suñu borom du si doole Cheikhul Khadim waaw mhm. Hmm. non pour doxaan jigéen. Hmm. rus naa ko sa wax. barki Sëñ Tuubaa dama ko foowul man xam nga rek foo ku ma ko wax na nga yaakaar ay foo la wala billaahi wallaahi pour dem jigéen naa koy di eh, mën a bëgg non c'est dur aussi. ndax doo mais tamit. après tout. les gens beaux gosses. ndeysaan xam nga. Mhm. mbër yi xam nañ la macha allah. am nga succès. Mhm. yi forom ñu ne Ousseynou. waaw sa xol bi. Mhm. commencé kii def maa ngi eh, bëgg naa suñu borom may ma soxna su parce que tamit. tey li may doxee nii dafa métti xam nga. comme nan ngay doxee. entraînement xam nga dafa xaw doy war mm-hmm. dafa métti trop. Mm-hmm. man mi may yëg man maa xam man. Mm-hmm. sonn naa trop jaayante dinaa ba sonn. waaye nag maa ngi ñaan suñu borom nga xam ne moo am. te mooy moo sàq ñëpp. indi benn yaay faal bu baax kii mooy soxna si. mu nekk ki gën nag. maam mu nekk ki gën ko gën laa bëgg de. mais na koo xool koo gis. nii nii nii nii. Ah. fii nii nii nii nii ni may waxee nii. sëñ Tuubaa xam ne gisuma ko. yow yaa ko wala yow moom moo xam naa ni may doxee la parce que li may li ma la wax euh, sànq su ma xëyee dem géej fajar gi huit heures moo bi daara ji deux heures damay dugg fii du ma am temps quoi six heures damay demaat segg balaa vingt heures affaire couvre-feu bi ma dugg parce que bëgguma ko duma loolu moo tax moo tax du xam ni situation bi ni muy doxee yàlla mhm. waaw vraiment dañoo dégg guy gi naan ñu koy nuyuwaale au passage borom États-Unis guy gi waaw ndeysaan ñu koy nuyu mu ne mu ne du moins ah. mhm. man mosu doo doo wax man nee na mais ku dul doxaan wu waaw ah, waaw guy gi xam naa day sànni xeer mais xam ni ku nekk da xam sa bopp te suñu borom tamit moo bëri jàmm ñi euh, loolu moom dama ci bëgg dugg noonu waaye xam naa dal gur yàlla gur yàlla pire ku ma gis nii da koy xam parce que tamit soxna yi suñu borom may na leen su da nga xam kii góor yàlla xam naa moo tax xam nga tentation yi di bëri waaye nag dañuy jaayante muñ rek te xam mi sëriñ bi di xam maa dinañ indi ki gën métti na waaye jaayante lu metti moom da nga fay xaar rek waaw vraiment mos ngaa dund tentation jigéen ñëw na la Oustaz dama la bëgg affaire yooyu lu bëri yoon ay samay morom ay samay mag ay samay morom yaay. waaw ah, waaw non nit da ngay wax dëgg rek man du ma xam nga ku wax trabe trahi ba mel. dafa doy war. te leen la ñuy waxee ñëpp lu ñu seetaan ci àddina looy wax rek na nekk lu wér lu billaahi wallaahi man maay borom jumaa ji. luñ xam maa dañu gis tamit macha allah état bi. gis tamit leer yi. mooy leeru góor yàlla ku mu caaxaan suñu borom am na lu muy def ci moom xam naa soxna yi ñoo gis loolu léegi su may doxee dañu may wax seen bopp waaye mais damay calmer rek di waxante yow di lay dalal di lay kiiwal ba nga nekk rek waaye du ma la wax mukk lu ñaaw non non non déedéet mm. gis loolu rek quoi mariage kan kon ko soxna nga mariage waaw maa ngi ko ñaan daal borom may ma soxna si bu gën di yaay fal maa ngi xam naa nag dafa jotagul mais su jotee moom xelal naa ko yëg yow yow moom nit ku baax nga mm-hmm. vraiment ñu bari nañ turu xaadim bi mooy joué si yow du a parce que tamit sama mam bu jigéen mm-hmm. maa ngi koy ñaanal suñu borom yërëm ko ak almeeri tubakan yi mu nekk yàlla na ko yàlla yërëm mm-hmm. dama mos a suma combat euh, DMX pa ale mi gaañu bërki démb suma xarit la moom ko baax la dafa mën a ñëw dafa def ay ñaan yàlla na ko yàlla yërëm dafa mënoon indi ay saafara di ma sotti xam nga mais bi ma génnee ba sottoo saafara yi ba génn sama ma xaadim mën ñu deux minutes keroog sama deret la yëngal mm-hmm. parce que tamit ki mm-hmm. koy ñaan ci doole ak Nuuru ak gis bu Serigne Touba nga xam yàlla jox na ko àddina ak alaxira alaxira mm. yàlla na ma téel boppam ak bépp taalibe ma dofe si wax mm. ne sëñ bi dina jàpp lépp mm. barki Serigne Touba à sa fin j'espère que vous avez aimé ah. ki nga xamante ni moom mooy Ouza 2 mu nekk ndaanaan nekk koo xamante ni gars yëpp dañ koy wër mm-hmm. ñu waxtaan ak moom waxtaan bu am solo bu neex mais Ouza mm-hmm. instant bi moom

de ci am solo. kon mbër bu mbër buy kii Ouza moom bu yeboo mu pare booy ah booy yi lay dëkk. ah muy booy muy sama morom man moom je suis pare maa ngi entraîné chaque jour dama mel dama nekk ci avance nag mais mbër bu mu njëkk am ah dina métti tool barki Sëñ Tuubaa laa wax maa ngi war koo xamante ni kenn du ko war bi maa ngi de coono yoo xamante ni. Sëñ Tuubaa morom. du ma wax dara juy jëf moom du wax. waaw li may tàggoo nag mooy yow di la gërëm euh, di la sant defe naa bi mooy deuxième fois yow da ngaa nekk nit ku baax. parce que li yéene la quoi vraiment yow moom euh, yàlla la yàlla jàppale liggéey bi nga liggéey suñu borom jàpp da ngay nit ku baax nga yàlla la yàlla doole yaag sa caméraman bi nga àndal. Mm, waaw Bachir maa ngi koy char sëñ Bachir borom Daaru Minam. Mm. maa ngi lay char baax a baax yàlla na yàlla jàppale. kaweel seen télé bi ngeen am yokk ba yëkku ci barke Cheikh Khadim. vraiment nag di gërëm ñi ma seet si fii tey ñu bëri sax jóguñu ko woon mais gis nga bi ñu ko diggee lañ ñëw ñoom daam seen mbër am na combat yàlla na ko yàlla may dem dafa mbër maa ngi koy char yàlla na ko yàlla may dem am na combat moo ko aada faas ñoom waaw ay ndaanaan lañ champion lañ nag waaw Moustapha sama rakk xam nga Cheikh Baye sëñ Talla jëwrin maa ngi koy siyaar sëñ Abdou Lat waaw nga xam te ni moom bi mu juddoo la sëñ Tuubaa xam naa ko ko mag waaye ko gën amu fi muy borom bel koy nuyu bu a baax mm. Saliou borom daal dëmm bi waaw ak Kader sama moom kàccoor la kii moom mm. ci émission bi jeexal foog ma duma ko parce que gëj naa ko gis mm. ku ñàkk taalibe ak sama doom Youssou Cheikh Baye ak Mansour Mamadou maa ngi koy siyaar ak sama nijaay nekk fi ñoom Samb Gueye ñoom Pape Gueye ak ñoom euh, Alsane ak euh, papa yi Salif moom yóbbu moom it ba Mbaxane. Mhm. yow ma ngi koy nuyu. Pa Ba Ablaye Ba waaw ak papa yi Pa Jongo pa papa yi Ba Baba. Mhm. nit ku baax la yóbbu na ba Makka Jaane fi amul seen dem di san pa bi ñaanal ma mhm. téye ma ba pare dooleel ma maa moom def nañu fi daanaka deux semaines. waaw vraiment yàlla na ko yàlla jàppale di ko ñaanal nag mu jàgg fi te wér. vraiment li mu bëgg ci njabootam suñu borom defal ko ko sant nañ gërëm di ci gërëm nag suma sëriñ sëriñ Maxtar Mbacke bi suñu Abdoulahi Mbacke borom mbër bi di ko ñaanal mu jàgg te wér gis nañ ñaan yi ñaan moom gis nañ lépp sëñ Mbacke keroog dafa ma ñaanal ba waaw waaw waaye nag xam nañ léppay baax li ma sëriñ Mouhamadul Abib Mbacke waxoon pencum sëriñ Sonhibou ma ne ko xarit am lu waay ci am ko lépp dina baax dina yàgg dina neex waaye bul yàggam ci kon ngi koy gëm sant di gërëm yow di la nuyu waaw di la jox yëpp Pape Doumbia sama grand la la nekkoon moo yor yor ñoom Modou Lo moo ma yar dafa gaañu yàlla na ko suñu borom yërëm xare ko àjjana ak Pa Ale yàlla yërëm ko xare ko àjjana di nuyu suñu waa kër yëpp sama nijaay Samb Gueye ñoom Papa Gueye ak Alsan ak Wuli ak su ma ñoom Pam Seen ñoom Grand Da Mamour Mouma Kébé su ma limee dinaa juum ak euh, ñëpp ak Bagri mi nekk France ak Aydara su ma lakkale ñoom Mboy Amet ñoom ñëpp sant naa gërëm naa waaw yàlla na Sëñ jàpp lépp waaw. Adiko ak Badji bi ak Grand Ngala maa ngi waaw. <laughs>